kon nag bu ñu yaakaar ne mbir mi noonu lay tëddee dégg nga suñu borom nag ne yéen jullit ñi yéen laay wax maakaan mm-hmm. nekkul allahu yàlla li yasara pour nay seetaan aka bàyyi almuminin jullit ñi te moo ñu gëm ñi ala ma antum lii ñu nekkee mooy dikk na gëm nanu ñu ne gëm nanu rek di jullee ko woor te duma tagi nattu déedéet yow mi jug ne da ngay jàng xam-xam déparé fu sori mm. ah léeg-léeg nag xiif dab la mm. ba nga yëg ne yëf tar na mm. léeg-léeg nga ñàkk ndékki xëy na léegi sax bëreetul waaye jamono fii gaa yi fii ci kaw boo déggee gaa yi di jàng ci guddi ko yaa nga dégg baat yëpp euh, ne kamuus lay <laughs> wax ne gaa yaa ngi ci ci bool ñëw na fi rek mooy birti birti ji njëkkante escalier yi yàlla bu mbay cere fekkee lii waa ji de kenn mënul gis lii waa ji <laughs> laay bu sàngoon di nelaw sax dana <laughs> sund waaw kon nag léeg-léeg nga dem jëli darsu coono boo xam ne léeg nga dem ba boo ko jànguloo yooyu yëpp ci natt bi la bokk kon nag bul ñëwee da ngay jàng xam-xam rek nga yaakaar ne yombee noonu de déedéet ñàkk reer geeg yére yi ci lim ngay teg léeg jëmale bu kenn xamut ak lu ne waaw kay lu ne da nga ko ciy daj waaye itam lépp loo yëngu rek yàlla bu fekkee la nga yëngu woote nga dëgg ci yow foog mu natt seet ba xam ndax li ngay woot bu dul dëgg rek ngay gaaw a xàddi gaaw fii noraan dikk na fi bataay yi delluwaat ginnaaw mm-hmm. am na fi noraan boo xam nga Matar Diop ku doon waar la menacé na fi noraan bataay noraan ba ñibbi kenn mosul gis loolu. jeex na ma ngo. waaw dafa ñibbi day ñibbi. doo <laughs> gars yi seen bakkan yi sàmm na loolu xëy rek tegwaat ci darsu yi. waaw ma ngoog yàlla nag ma ngoog seet ne mm. lépp loo mën di yëngu rek noonu la. Mm. soo ubbi woon daara itam di jàngale itam nattu boobu ngay am première bi wala muy neex léeg-léeg gars yi convoqué la police léeg-léeg waa koñ bi ne yaa ngi ñuy fatt léeg-léeg coow yi ne kur seet la rek ba xam ndax ñor nga wala ñoroo yooyu yëpp ci natt yi la bokk loolu yëpp noonu la rek kon nag ala ma antum alay xatta ah, yamiza loolu dafa dem ba jeqee maanaam ba ràññee moom yàlla alxabiisa mooy naafeq yi ne taybi ci jullit Mm. alxabiisa ñuy sóob ne mm. tay bi ci ñu dëggu mm. ci ñuy woote lañuy woote waaw noonu da nga ko mën a wax yooyu mm-hmm. nga ko baax a baax kon nag yàlla moom noonu la te wa maa kaana nekkul ba tey allahu yàlla li yutliakum pour mu leen fi nekk di leen xamal alal xay bi de ñëw leen diw naa fekk la diw naafek la diw naa fekk la matu ko la im naa tay la Sakandari doon wax ca xikam ba nee nit ñi mooy istisraafuka ala ma batana fiika min al uyubi xayrun min istisraafika ma xujiba anka min al guyubi nee na nga def yitte ba xam li nekk ci sa xol bi ci xeeti sikk mu dañ mu ëpp doole fuuf ngay def yitte pour yàlla may la kéemaan su la yàlla may la kéemaan te rëy dañu gul ci yow ban njëriñ la mm. ci njëriñ la bu ñaan dañagul ci yow ban njëriñ la am mm-hmm. kon fexeel yooyu dañ ba pare mm-hmm. loolu la wax ca xikam ba mm-hmm. kon nag yàlla nekku fi di leen jàngal ay kumpa ay nangam nangam déedéet waaye yàlla mooy xool ku ko neex nome ko lam ko neex ci fam ko neexee walakin allah waaye yàlla sama borom yajita bi dafa tànn min rusulihi ci ay ndawam moo ciy nome man yasha dóori décret ay ca nommé nañ ko nangam mu jeex ku koy def yàlla ka ko kon nag fa aminu rikki lillaahi wa rasulihi gëm leen billaahi ci yàlla wa rasulihi wa in tu'minu ndegam gëm wata wa tattaqu ngeen ragal yàlla mooy sundiku loolu de mooy jàmm ci yéen bu boobaa falakum ñeel na ajurun ak pay azimun bu màgg a màgg te la leen koy jox tabarakallahu mooy ragal yàlla la leen koy jox mooy ragal yàlla kooku ñu wax ibrahim ibnu adham ne dafa mos fanaan ci baytul maqdis ci benn xeer ba guddi gi sore ñaari malaayka mu yàlla may ko mu gis ñaari malaayka kenn ki ne kii kan la ak ku nekk fii mm. nekk na nag Ibrahima ibnu Adham la de mm. mun lu muy def fii mm. mu ne ah yàlla de moo wàcce dara jaam dagaa ngaa dégraté mm-hmm. mu ne lu tax mu nekk moom daal dafa demoon ca bitigu Basra ba dafa jënd tàndarma tàndarmaam rot ci kaw beneen tàndarma ca kay jaay tàndarma mm-hmm. déggal xàq jooju ni mu sewee mm-hmm. moo tax te waxul kee baal ma est-ce que ma wax <laughs> te waxul kee baal ma moo tax yàlla sanctionné ko ci teg kaay sanction ba dara jaam gën a wàcc nee ma yeewu rek ñuy gëndaat tàndarma fexe tàndarma waa ji dalaat ci sama kaw tàndarma mu fayu mu jeex ñu ne yéegewaat nañ ko kon nag wa tattaqu fa lakum ajrun azim mm-hmm. loolu la ci wax mm-hmm. loolu mat nay bàyyi xel xam naa daal ñun yow yàlla na yàlla komp mu bu kompulee dana métti de dana komp de xal mm-hmm. ah, doy na waar daal xam naa ne comme yi seen sawaan yooyu lay kiimaane moom doy na waar wala yaxsabanna bu mu foog alladina gaa ya nga xam ne yabxaluuna ñi ngeen nay dégg ko baax baax bi ma aataahum ca la jox na leen ko allahu yàlla min fadlihi ci alalam ah ci alal te génnewuñ ci asaka buñ ñu foog ne huwa moom nay googu xayrun lahum moo gën ci ñoom bu ñu foog loolu de ndax yénent bi bu yént yàlla Moussa kon afan dafa mës a romb benn waay muy julli julli gu yéeme lool ci julli gën a rafetee yàlla wax yent yàlla Moussa gis nga waa ji di julli hmm. su doon julli bis bu set hmm. junniy rakaa hmm. goreel junniy jaam goreel jullee julli junniy néew ak junniy aj xeex junniy xeex du ko jëriñ dara lu def alalam ji mu am dajee joxe asaka kon nag am alal ju mën a génne asaka ngay wowali bant ak a tendeefal di wax lu kenn xamul loolu mar day caali dégg yeneen bi ne malxuunun maalun laa yuzakkaa kulla aamin mm. yàlla rëbb bépp alal boo xam ne mm. boromam du ci génne asaka at mu jot mm. waaye itam yàlla rëbb yaram woo xam ne duy am nattu ci ñeent fukki guddi yu ne moo xam fa kastalu la wala feebar la xosiku la pusa jam la tabaarakallah yooyu yëpp ci nattu yi la bokk toujours ñu netti la fi benn saxaaba boo xam ne dafa amoon soxna soxna si di ko tarbiyewu hmm. baax ci moom lool hmm. ba benn bis mu yónni soxna si hmm. ndox ba mu ñëwee fekk borom këram di nelaw mu taxaw ba taxawaay ba yàggee nag ba mu yeewoo naka yow bu bëli jaa ngi fii xam nga bu fekkoon ne <laughs> euh, soxna yi léegi yi la laa ilaha illallah ñoom sax duñ la wax demal may sa baay ndox wala ñu mbiraam bi demal may ko ndox bu ñëwee moom amuñ sa temps sax nanga nekk taxaw ceen jëmale fu kenn xamul li am na ñoo xam su dañu la fa yéen dañu font wax naka mooy yónni ndox ba pare bàyyi kii dafay font rek ñoom delloo pot bu fële ñoom dox seen soxla yàlla bu ñu demee avec ba nag natt seen natt ba toog jëbali bu kenn xamul nag <laughs> ba mu yeewoo ne ko waxal loo bëgg ma defal la ko mu nekk li ma bëgg mooy nga fase ma mu nekk lan laalal bant mu nekk ah yaa ko waxoon xanaa waxoo loo bëgg rek mu ne ko ah, nañ dem ci yonent bi mu seede ba ñu ñaadam ñaadam ñaadam dox ay 10 mm. waa ji fokkastalu tànk ba dagg mm. mu nekk ndaw si ne ko nañ wàññeeku mm. xam naa léegi gëm nga yàlla ndax maag yow ba ñu nekkee yàgg na te mosumaa gis weqosiku ci yow der ak kawar gu foofu dara mosuma kaa gis ci yow te nag jullit dafa war a am toujours ay natt nattu mm-hmm. ñàkkam xaalis meeg yëpp ci natt yi la bokk di mm-hmm. parce ñàkk feebar ñàkk xaalis bi ci natt yi la bokk de mm-hmm. <laughs> waaw boobu rek doy na natt moom ña ñàkkam xaalis bi léeg-léeg foofu doy na natt moom wax nga dëgg de yooyu yëpp ci la bokk toujours nga dégg mag ñi ne Cheikhul Hadj Malick toog na diggante mel ni ku yëgul dara am ku muy dagg daggloo weeye far kooka juum laalaale tànk ba dara ji mu ne alhamdulilah damaa yaakaar sama borom sax dafa maa mere gis na ko moom fa mu déggee natt moom kon léeg-léeg di soj soj mu métti donte métti na nag waaye baax na ci ndax xam nga feebar yooyu léeg-léeg li lu tax mu baax mooy saa bu la ko yàlla tegee da ciy dindiwaale say bàkkaar non seulement da yem ci dindi sa bàkkaar la yénent bi wax waaye da lay yéegi ay martaba neexul nag bakkan du nangu loolu nag bakkan moom lu mu bëgg rek mooy di caaca mbul di dem rek bakkan moom loolu la bëgg moom kon nag asaka yi nañu koy génne ci alal yi ndax wàllu wàllu asaka xam nga waaw waaw léegi dafa am xam-xam benn ci benn som waaw euh, même téere ba dañuy wax sayul fekk sunna itam bokkut ak fekk sunna bu sëy saabiix bi nag mo sayul fekk sunna ak fekk sunna bu sëy bi nga gën a miin bokku ñoom ñaar moom it boo demee danaa ko fa détaillé téere yooyu daal wax dëgg yàlla détaillé ko détaillé bu yaatoo yaatu dégg kon asakaango ba li fi nekk mooy ñàkk génne asaka googu sarrun asi musiba la lahum ñeel leen te la ca gën a métti mooy ëllëg yowmal qiyaama yàlla dafa jël alal jooju soppi ka jaani ñàngóor jaan joo xam ne dañ leen kay laxas muy matt seen ŋaam yi file naan la man maay sa alal jaag maay sa compte banque yaag ana kanzuka ana maalu ka loolu lay wax gis nga ko bu baax loolu lay doon mujj alal ji mujj nekk alal musiba joo xam ne mar day taali sa yutawaquuna dees na leen caqal maa bakilu lépp loo xam ne nayoon nañu bihi ca loola yowmal qiyaamati bi su taxawaay ba walillaahi yàlla donga moom miraasu samaawaati moo ndono asamaan yi wal ardi ak suuf yépp ci loxol yàlla lay mujj ndax moo fiy des yooyu bu fi ñëpp jugee ndax yooyu nit ñi indiwuñ ko fi dañ ko fee fekk comme dañ ko fee fekk nag ak yi ñu fi defoon yëpp dañ ko fee fekk di yow loo fi indaale indaale fi ciment indaale nga fi turéel nag da nga ko fee indaale nag indaale woo sax indaale ko yëpp da ko fee fekk waaye léegi nga boo fi dem loo ci yóbbaale kon yàlla ne maa fi des yooyu dafay des maa koy mujj moom at miraasu sama wal ard wallaahu yàlla bi maa taamaluuna ci li ngeen di jëfandikoo xabiirun ku ko xam lool la ndeysaan yonent bi sallallahu alayhi wa dafa mës a yabal Seydina Abubakar ci bani Qaynuqaa nekk demal nga woo leen ñu dugg ci lislaam ay yahud lañu woon nag nañuy taxawal julli di joxe asaka di lebal yàlla lebelin wu rafet ba mu duggee fekk leen ca seen église ba ba ñu dajee daje fa kooku ñuy wax fan xaas benn yahud bu mag la ci seen borom xam-xam ya am na fa itam keneen ku ñuy wax asbiya ci seen yahud la Seydina Abubakar ne ko ba mu waxee loolu kooku ne ah man di man bëgg a jommi yàlla juy lépp Seydina Abubakar naka ragalal yàlla man yonent bi mu yónni nekkuma di kafak yu kenn xamul lii ngay weddee ka saboote mm. soo xoolee seen tawraat bële daa ko ci gis ñun mu ne ko ñun de li xam ci kuy leb ku ñàkk kay def ku ndóol ba xamoo foo jaar dem ci ñu am ñu lebal la kon daal xam naa kon ñun ñooy kilifa yi ñooy borom alal yi yàlla moom moo ñàkk si na Abubakar mel lool bala day rey waaj yonent bi ne ko ëpp naa def ndax dañoo fanante ñoom kóllëre bu nag bu doon kóllëre gii dox suñu diggante ak de teg naa jaar si ci sa bopp bi nga faatu benn alxuraan dikk nag di leen tontu te ñoom la ñuy tuddee ak ñàkk ak saboote te fàtte nañ ne yàlla moom moo leen jox yooyu dégg nga ma ngoog nee na laqad samia dëgg-dëgg na dégg na allahu yàlla sunu xaw xawla alladina kàdduy gaa ya nga xam ne xaalu am nañ fitu wax ci mbooloo ne inna allaha wér na yàlla faqiirun aj aajo wala mooy ku ñàkk a ngi nii ku néew doole ngi nii ku ndóole ngi nii xoole ñoom garaat bi ñu tagal seen bopp takkal seen bopp te wanaaku nun kat wax dëgg yàlla ak ni yaa nag wax dëgg yàlla ñun ñi ñuy leb ñooy riis riisaar yi lañ leen di wax wala ñu ñooy ñu riis ñi daal ñoo ngoog ñooy way woomale jeex na sunu borom na ah li ngeen di wax baax na sanaktubu daanu bind hmm. maa xaalu xam nga yàlla jël nañu mbind ma kay loolu kay xam nga ne keneen na kay bind wa qatalahum ak ray goo xam ne rey nañu ko al ambiya yenent yi bi xayri xaqin ci lu dëgg ak boom gi ñuy boom yenent yi te boom gi teguñu ko fenn fenn fenn lu seen bànneexu bakkan ci lañu ko teg waaw bi xayri xaq ci lu dëgg lépp daañu ko bind mu nekk ay bàkkaar yoo xam ne da leen di xaar te nag ëllëg wa naqulu daañu wax ne leen zuuqu mos leen adaabal xariiq mbugal muy lakkami te mooy mbugalu yowmal qiyaama comme na ngeen nekkee woon doon ci saboté yu jullit ñi kay leen tey ngeen xam li ngeen doon saboté yi lan ma li waral duma yooyu ak mbugal moomu bi maa qaddamat ci la dawal na ko jiital na ko ay diikum seen ay loxo la seen loxo jiital ci mooy yàlla ci ay ñaawteef moo tax lii xew waaye daf ko jaari yoonu majaas rek du loxo yi kese lépp doon jàppalante di ok aywa waa na laaxa naka sama boroom lay sa déet moom yàlla bi zallaamin muy boroomu tooñ lilaa bi di ci jaam ñi di duma kenn te deful dara wala yónneewul ci moom ab yenant jekke-jekke te kaay sanction te dara xewul te kooku yëgulu ko doon di xew lim bëgg ak lim bañ yàlla bindoowul noona Sénégal nag ngay gis nit koo xam ne comme ñun ñii duñu jàngal lu yi xew ñun ñii ñu ci bëree bëri sama maas gi xamuñ ci luwaay dara <laughs> fan yee nag gisoon naa ci constitution bi la xaw ma eh, bu arab téléchargé woon naa ko sax waaye gis nga ko ba am na bu arab bi kon boo ko gisee itam ah nga xam bu boobaa bu gars yi debaa nga indi article alaniya nangam sàngam boobu gaa yi mën nañ ko xaw waaw ma leen yéen alaniya mooy lan loolu du ngeen ko alaniya mooy lan xam nga léegi ñu ne article 27 alaniya mardi taali dañ ciy am luñ ciy teg kooku moom sëñ Abdou Bara mën na boobu alaniya nangam <laughs> wala wala mii ni leen yooyu da ñu ne article nangam alaniya 7 wala alaniya xaw ma lan xam naa bu ñu waxee atte bi daal am na beneen atte bu ñu koy booleeg pour mu yëf yi mën dem li ma déggee daal loolu man loolu laay déggee ci wax ji <laughs> booy déglu seen xibaar yi da nga ko <laughs> da nga ko dégg bu baax a baax loolu la eh, yàlla nag bu def noonu moom bala mu lay duma ci mbir day fekk tëral na la waaye ne lii la jàngal la ko ba nga mën ko ne lii laa bëgg lii laa bañ nga xam ne soo dëgëree bopp def la mu bañ sanction yi door a dal si kaw waaye ñun nag malheureusement duñu ci jàngal dara nga def loo xam ne waroo ko def te xamuloo ko nga dem ñu ne xamoon ne lii yoon da koy tere teg la alamaan wala teg la nangam nangam wala téye fi tardeel la ah te waroon nañ la kaa jàngal nag yaa xay wax dëgg yàlla yàlla yàlla suturaal ñu ba duñ fa àgg moo gën a wóor waaye waroon nañ kaa def ci wolof ñëpp xam ko def ko ci arab def ko ci français bi ak làkk yi ko nit ñi mën a xamee yëpp waroon nañoo def loolu pour nit ñi xam ko nag xanaa pour nit ñee tax pour nit ñee tax lu tax mënuñu kaa xamal nit ñi fii ak amuloo problème ba dem ci tribunal wala police ba daal daanaka doo mën a xam yëf ni muy tëddee loolu it xam nga jafe hmm? xam naa noonu daal yoonu jaaxal na ma man suuf si bu nekk Sénégal boobu ma gën a jaaxale si nag. ah ah waaw loolu it baaxul. Hmm? mos naa dem tribunalu Thiès. moom yàlla dogal na miinu ma foofu sax waaye dañ ma faa woon may seede noonu rek waaye keroog daal euh, xam naa daal di bàyyi xel ña fay ñëw ci ñi nga xam ne xamuñ mbir yi ni muy tëddee ndax mooy audience yooyu ñuy may kayitu juddu yeeg yooyu yooyu noonu nga xam ne da ngay ñëw rek pour ñu war la indi seede yeeg yooyu da ci gis koo xam ne day jógee kilomètres yu sori lool ndeysaan mu ñëw. ñu ñàkk ka teggin ci kanam ba pare mm. naka delluwaatal ndax waroon ngaa def lii waroon ngaa def lii te yow waxoo ko woon avant muy ñëw mm. te am na yi kayit yu mu ci yow yow yi mu teeyal ci yow kay comme ñëw na di ko si nekk ko soo ko bëggee am fii ngay jaar ak fii ak fii mm. nga xam ne ëllëg bu ñëwee bu ko amulee nga mën a dal ci kawam sax askan yow waaye moom du ci xam dara yenn yi lay am bu waree indi seede lay leeg seede yi di ñëw nangam sangam wala yenn yi manqué du ci xam dara te jugee fu sori nga ñàkkee ka la ma ca gën a métti nag mooy fax nit ñi comme marqué wuñ leen kii nit yàlla la kii xutbu la kii nangam nangam la yooyu ca ngay yàqoo xam nga xam nga man loolu moo ci gën a métti man nit ñi fay ñëw te amuñ benn marquage boo leen mën a xàmmee ne kii nit yàlla kii xutbu la kii lii la kii laa la ngay jaay ñàkk teggin yow fa ngay jaaree alku yow loolu lu mat a bàyyi xel la moo tax ndeysaan ba ma fa jógee ci tàng-tàng ba <laughs> am na ñoo xam ñuy yëngatu ci mbiram tribunal ak mbiram droit dama leen ne ku ngeen ci xam tamit te nga xam ko tamit liggéey ci mbiram droit dee ko wax nay rafet njo nay rafetal diggante ma nit ñi teggin leen di may teggin am ku ma ci wax ne ma tribunalu ndar bi am na ku ma woo ku nekkoon ndar mu ne ma tribunalu ndar bi am na ku fi nekkoon koo xam ne moom saa boo ñëwee ci procureur yi da teg ci yoon wu baax ne la lii soo ko bëggee am fii ngay jaar fii ngay jaar fii ngay jaar fii ngay jaar fii ngay jaar moo tax mu ne fi jógee noonu la ko ñëpp nammee xam nga kooku noppal na nit ñi comme yow da fee ñàkk xam wala fi indi kay wax dëgg yàlla su di teg ko ci yoon wi rek waaye ma malheureusement ah yàlla yàlla comprendre ñun de moom yàlla yàlla musul nu bokk gën noo musul ci li <laughs> ah. loolu la ma sëy di wax dinañ ko mu ne kon dootuñu lekkati xaalis <laughs> loolu ma wax léegi di nee na kon gars yi duñ mooy lekk waaye loolu itam kenn xamul lan la kon da nga ne bëgg réew mi itam man daal man daal man nit ñi jaaxal nañ ma daal doy na waar. <laughs> wax nga dëgg de système bi de seen système la moom maa lay sa bisul laa mi lil abid nee na allazina mooy gaa yi nga xam ne xaalu wax nañu ñoom yahud ak nasaraan ne inna allaha naka sama boroom nee ñu mi ngi wàccoon ci kaab ibnul asraf ñoom ñooñu yahud yooyu ñoo ñëwoon ne ñun daal lu mën di xew jàmm rek a cay mujj comme jàmm rek a cay mujj nag ngir kóllëre goo xam ne am nañ ko suñu digganteeg suñu boroom ku ñu neex neex ku ñu nangam nangam tey ji bokk na ci itam lañuy ñuy kóllërante woon yàlla mooy benn yenant buñ ko fi gëmee lu dul yenant ba daf ñoo indil ak jaamu yàlla goo xam ne sawara day bàyyi ko ca kaw lekk jaamu yàlla ga comme la xewoon ci diggante qaabil ak haabil mhm. ca xarma ñun daal ci li ñuy gëm bi yenent waaye su luy amul ndekki yoo waxuñ dëgg dara waxuñu ko lay lay layu biddanti rek ahida kóllërante na ilay naa ci ñun yàlla moo ñu wax ne allah nu'mina duñu gëm li rasul ñel benn yenent ci yenent yi ah xatta yatiina ñun daf ñoo dikkal moom yenent boobu bi qurbaanin ci ak jaamu yàlla moo xam xar mu ñu rey la wala mu mën di doon daal ak jaamu yàlla daal jaamu yàlla koo xam ne te akuluhu dana jëfandikoo jaamu yàlla ga an naaru sawara jugee ci kaw lekk jaamu yàlla ga wan na jaamu yàlla gii nangu na xul na leen waxu leen dëgg de xad jaakum ñëwal na leen ba tàyyi rusulun ay yenant yu bëree bëri min qabli jiitu sama dikk man Moustapha avant ma fi ñëw man rasulullah yàlla nomeel ne leen ay yënant nomeel leen nomeel leen ba tàyyi waaye ngeen ës rek bil bayinaat wa zubur ak i téere dégg ak i téere itam yàgg nañ leen kaa indil wal kitaab yi ba tey ak téere al muniir bay aji leeral moom téere booba lii waatu bu ma ah, waaw kay noonu la mën demee kay min xam li bil bayinaat wa bi lesi ak la nga xam ne xultum wax ngeen ko yéen ak li nga xam ne yéen a koy waxtu du dëgg te ngeen xam ne lii du dëgg fa lima taqtuluuna bu fekkee li ngeen wax dëgg la fa li ma lima xataltumuuhum lu tax ngeen di rey yeneen yi boobu bu fekkee li ngeen wax dëgg la ne da ngeen a kóllëranteeg yàlla ne benn yeneen du ngeen ko fi topp lu lay indil ak jaamu yàlla goo xam ne sawar dafa bàyyi ko ci kaw lekk ko lu tax ngeen rey yént yàlla Zakariya yént yàlla Yaxya te loolu amul fenn fu ngeen ko kóllëranteeg yàlla in kuntum saadiqiin ndegem wax ngeen dëgg waxul dëgg dañuy kàcci fa in kazzabuuka ndegem weddi nañ la yow yenent bi boobu la naqari de yow mi woote ci yàlla suñ la weddee yàq sa der dama ne sa waay bu la naqari xamal ne mission bi moo laaj loolu defal noonu rek continuer waaw kay weddeefoon na rusulun ay yenent yu bëree bëri min xablika yenent yoo xam ne dikkuñ woon ak loxoy kese dañoo dikkoon ak lay yu leer naññ yu bàyyi ci seen borom jaawu dikkoon nañu hmm. indi woon nañu bil baynaat ci lay yu leer naññ wa zubur ak i téere indi woon nañu ko mm-hmm. wal kitaab ba tey mm-hmm. ak i téere indi woon nañu ko ñoom yeneen yenent yooyu hmm? almuniir bay aji leer da de téere boo xam ne day leeral lépp loo xam ne moo nekk ci téere ba pour ñu mën ko jëfandikoo mm-hmm. dégg nga suñu borom nee na am fi ñaari fan ak ñetti fan ak miliyaar at dee doongu de taar bi moom yàgg-yàgg ñu ne ñëw leen ñu waajal ko ci jàkka ji fan yi lu mu gàtt gàtt waajal leen ko dong ci lay mujj kon nga am weer woo dul jeexal wala semaine boo dul jeexal wala noor boo jeexal foog nga am nag weer woo dul jeexal wala am noor walla koor goo dul fekkee wala tabaski goo dul fekkee wala élection yoo dul fekkee sama borom nee na mën a <laughs> kenn mësul gis loolu xam nga ne candidat boobu nga xam ne dañ kaa kale woon tam wàcc démb ci bokkul ci dañ ka ci ñiñ kale la bokk yetta saay xaw ma nan yetta saay dégguloo ko ah yow foo nekkoon yow Tijaan dafa mel ni actualité bi lay reeroo léegi de <laughs> Mouhamad xaw ma nan yetta dégg waaw kay Mouhamad yetta saay de waaw ah waaw wàcc na dinaa <laughs> <laughs> loolu laa dégg ñuy wax su ko defee kookoo yàlla. kooku de boo ko mi ngi noonu te la góor gi bu saax doon wax moo cay xew. Hmm. ne na yow yàlla xam na ne da ngay dee avant élection yi du la wax jëru ko jëru ngay déposé. Hmm. da bàyyi nga wut parrainage. dang ci dang ci fu ne nga dafa naam hmm. génn foofu dem ca conseil ba. jéeg maam déposé fan caution bi taxaw. fan fanweeri million fu ne nga dafa naam daraame. te mun a wax yow doo ko fekkee jëru nga ji sonn. waaye da bàyyi ngay dang ci dang ci balaa booba mu rey la. yàlla na guddal fan yi ci bàyyi ñu fi ba ci kanam kanam kon nag suñu borom ne comme noon la demee kullu nafsin ne bépp bakkan boo fi mën di gis bakkan bu am daraja laak bu ñàkk darajaak buñ xam ak bu siiw ak bu siiwul dama ne zaiqatul mawt aji i la dee araaka nasiital mawt wal mawtu mawridun fa lil kulli min bahrin mamaati nasibu loolu Seexul Hajj Maalik Si radiyallaahu anhu wax ne nag euh, pot ndaa la boo xam ne robinet la boo xam ne kenn ku ne daañ la service a kaas <laughs> ilaha te nag saako moom boo ci tibb bu yàggee mu jeex ah. <laughs> góor gi bu saaxu dakaan misaalee ne sa digganteek paal bu fekkee ne fanweeri kilomètre la ak nangam nee soo doxee ñaar fukki ak juróom war ngaa xam ne juróom la dese de bu fekkoon 40 kilomètres la ci misaal soo doxee fanweer ak juróom war ngaa xam ne juróom la dese mu teg ci ne ku sori fa ngay xëyee jege fa ngay fanaani ji ngi déparé Paal jëm si Ndar te si digganteeg Ndar fanweeri kilomètre wala 40 kilomètres dama ne xam nga ne soo doxee fanweeri ak juróom xam nga ne juróomi kilomètre moo la tëree àgg Ndar te Ndar nag mooy deewukaay bi ma nga kon kullu nafsin zaa'iqatul mawt benn nag la ci yeneen bi waxoon rek alxabru moom rawdatun min riyaadil janna aw xufratun naar benn mu nekk benn ci sardi aljana yi waaw wala wal iyaazu billah te nag wa innama tuwaffawna daañu leen matalal ujurakum seen pay yi qiyaamati fa man zuhriya képp koo xam ne sori leef na ko anin naari ci sawara mooy yàlla musal na ko ci sawara ah kooku moom du xile dugaleef ko aljannata kooku wax dëgg yàlla fa faasa nag texana kiilu na adduna bii ngeen di dang si dangti bu mu dox seen digganteeg seen borom lu ngeen ko wut wut bàyyi leen xel diggante boobu wamal xayaatu de dund bi ad duniyaa bu jegee jeex bi nekkul illal ilaa illaa mataal xurur lu dul muy bagage yi adduna yuy wore képp bànneex yuy wore képp képp la waaw lu nekk ci yow rek ci waay lu jógee ñëw ci yow te dafay jógewaat ci yow dem ci keneen kon def ci ndànk dégg nga ko bu baax a jullit yi nag yéen laay wax seen alal yii ak seen njaboot yii naa leen ci nattu de nattu yi nag dama leen di boole ñi gëmul yàlla ñu leen di diaboliser di yàq seen der lu ne ñu leen koy wax dégg nga bu baax a baax la na giñ naa ne daañu leen nattu yéen jullit ñi ci lan fii amwaalikum seen alal yi naa leen ci nattu léeg-léeg ñu sàcc ko léeg-léeg jaar fa léeg-léeg nga lebal nit mu bañ laa fay léeg-léeg nit dóor la léeg mu réer léeg-léeg yooyu yëpp ci xeeti nattu yi la bokk hmm. dégg bu baax a baax waa anfusikum ak seen bopp yéen naa leen natt ci seen bopp léeg-léeg sa doom dee sa baay léeg-léeg nga feebar sa baay feebar sa jabar feebar yëpp di sa doom itam léeg-léeg ñu ray leen léeg-léeg léeg-léeg ba mu waaye nag bu boobaa wala tasmaunna giñ naa daa ngeen dégg min allazina ca gaay ya nga xam ne wuutu wala asraku ah aywa uutu joxe ne la alkitaaba téere mooy yahut ak nasaraan min qablikum ci ñi leen fi jiitu woon wa min allazina ak a yi nga xam ne asraku bokkaale nañu yàlla ak leneen daa ngeen dégg ci ñoom azan ay lor kasiiran dem ci télé yi ak rajo yi di leen wélipande foofa di leen yàq lu ne loolu loolu fu nañu yàq fa seen der waaye muñ leen hmm. wa in tasbiru hmm. ndegam muñ ngeen lañ leen di wax wata taxu ngeen teet moytu ragal yàlla bu baax a baax ah loolu de mooy baax baax bi moom da nga euh, fa inna zalika nag naka muñ natt yooyu ak kàddu yu ñaaw yooyu ak jëfin yu ñaaw yooyu yombul min azmil umur ci mbir yu ñu dogu yi bokk ne yii bu ko def yàlla fay la ci dogu mbir yi la bokk ndax yombul kat lu ñu daañ la ko wax kon nag muñ gi moom yombul